Voilà, point du jour, justement, comme chaque jour, juste après le ministère de la Santé et de l'Action sociale concernant l'épidémie coronavirus au Sénégal, avec moi sur ce plateau, comme chaque matin d'ailleurs également, mon frère, confrère également, le grand Cyrine, Cyrine Salio. Serigne Saliou maa ngi leen nuyu. maa ne fay naa la. mbaa jàmm nga am tey. sant bu wér naka suba gi. ah jëlee sa casque bi après ma jox la ma jox la <laughs> voilà jël casque bi rapidement ma jox la gel euh, alcoolique bi antiseptique c'est important des bonnes euh, habitudes en cette période de crise sanitaire également l'épidémie coronavirus comme vous le voyez c'est comme ça chez nous c'est important et nous souhaitons également que vraiment des bonnes habitudes en tout cas rapidement on va aller avec le poignant du jour ensuite ce jeudi 23 avril 2020 exactement concernant le poignant du jour voilà le point du jour rapidement euh, voilà document B le point du jour. En ce jeudi, justement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats suivants de ce jeudi, justement, concernant le point du jour. Sur 387 tests effectués, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 contacts suivis et par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 8 cas communautaires ont été enregistrés, dont 5 à Touba, et 1 à Mbaké, 1 à Tivawan et également en autre à Kess euh, aujourd'hui. Quatre patients hospitalisés déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été enregistré selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En ces globalement, il y a plus de 479 cas déclarés positifs au Sénégal, dont 257 guéris, 6 décès une évocation et donc 215 sous-traitements actuellement dans les hôpitaux sénégalais rapidement ñu ñaat chiffre xool chiffre yi tey ak euh, coronavirus bi Serigne Saliou oui justement tey def na ñetti euh, ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom test euh, si ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom test yooyu fanweer ak juróom ñaar ñoo am jàngoro ji mhm. si fanweer ak juróom ñaar yooyu noonu ñaar fukk ak Hmm, ñaar fukk hmm. ak juróom-ñeent cas hmm. contact lañ am maanaam euh, ñi nga xam ne ñoo laale ak euh, jàngoro ji ñoo laale ak ñi nga xam ne ñoo am jàngoro ji ñu am ñeenti ñeent ñoo xam ne ñii ñu ngi euh, ñoo xam ne déclaré nañ leen géer yi maanaam wér nañ waaw ci ñaar am na ñaar ñaar téeméer ak fukk ak juróom ak juróom-ñeent ñoo xam ne ñu ngi ci bërëbu yi. Mm-hmm. ñu ngi sous traitement. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. voilà Le justement point du jour rapidement boo xool chiffres d'abord. lan sa réaction bu statistique euh, réaction cas communautaire parce que communautaire. voilà. ci communautaire kaawu xam nag ci Touba lay ci Touba lay bay. waaw Touba am na juróomi kaa communautaire. Mhm. muy loo xam ne nii euh, mbir baa ngi gën a yokku. mais pourtant man je, je me disais que c'était c'était c'était terminé pourtant euh, mhm. pour Touba parce qu'à un certain moment évidemment Touba était euh, resté zéro cas positif aujourd'hui bu ñu atta encore ba ñu wax ay cas communautaire rawatina 5 cas communautaire tay ji Touba je pense que la bataille le combat est encore loin d'être gagné. waaw man man moom si loolu lu ma ci wax rek muy déplacement yi la ñuy déplacer wu. ndax ba léegi oto yaa ngi déplacé wu di jóge dëkk di dem dëkk puisque dañ waxoon ne jël nañ ay mesures ba à que oto yi duñ déplacé wu. yoon mhm. mais ba léegi mu ngi am donc man na man na mën nga jóge fii nga dem Touba wala mën nga jóge Touba nga ñëw fii. Mhm. tamit yooyu il faut Tu hmm. voir aussi, mais Dora Amni, cas communautaire tu vas voir, je pense que c'est justement le premier cas à, à Est-ce que cela aussi, bonne interprétation, bonne Yagan justement Il faut que le euh, cas communautaire, nous prévenir avant, parce que si cas contact amé, nous avons cas contact, contact, nous avons cas communautaire. Parce que nous devons savoir que xam ne nit mën na am jàngoro ji hmm. te du xam fa la ko parce que jàngoro yi dafa doon loo xam dafay dafay propager di dox ci dëkk bi. Mhm. kenn xamul fan la nekk. Mhm. donc waroon nañu jël suñu matuwaay bien avant ka euh, contact yi di jeex. Mhm. léegi puisque Tivaouane tey enregistré na premier cas communautaire donc il est temps ñoom ñu jóg gën a farlu wàññi déplacement bi. mais je pense que si ce n'est pas non plus une surprise que bu ñu xool Tivaouane ak ak Thiès dès l'instant que Kies a mhm. il fallait aussi s'y attendre normalement. oui lépp li parce que boo configuration géographique Kies ak Tivaouane presque. ben la quoi Le li ko indi mooy déplacement bi rek. déplacement bi jógee Tivaouane dem Thiès wala jógee Thiès dem fële te xamoo ndax yaa ngi doxa jàngoro ji wala léegi wala mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël jëluñu ko tamit day causer problème. Mhm. Est-ce que actuellement il faudrait pas un confinement, semi-confinement, confinement en général, je sais pas peut-être le terme qu'on va exploiter, mais vraiment yaakaar naa ni egg si nañu tey ba nguur gi tamit jël matuwaay wax dëgg la jël décision bi xam ni pour mun a confi faut confiner ñëpp parce que les cas communautaires ñu ngi gën a bëri chaque jour. confinement total moom war na am mais confinement semi-confinement ou confinement total. confinement total ça warna am. confinement total dafa nak <laughs> non dafa metti mais dafa am lu mu lu ko war accompagner. Ah. lu ko wara accompagner ku ci nek nga jox ko li ko war. nga jox ko dund am go ne ni man na tok une semaine du guen du soxla dara ci biti. bu boba man na régler situation bi. 1000 milliards yi wax 1000 milliards mu ngi fi. Mm. nak famille ñu nous sommes 15 millions d'habitants mm. Sénégal man na lolu mm. puisque am nañ 1000 milliards si fond de riposte bi. man na génne famille bu nekk mu jox la dund une semaine bu ko defee kenn génne. parce que koo joxul dara moom faw mu génne. nit ñi moom faaw ñu génn di outil lu ñu lekk. pourtant à un certain moment le Sénégal était justement en train de remporter ce match cette affiche justement cette bataille. mais dafa mel ni tey on est en train de se délaisser vraiment dafa mel ni commencé nañu nalaw tuuti affaire bi gën a yaatu encore. situation bi situation bi moom bi koy grave mooy restez chez vous te ki ngay resté loo c'est lui.

jox man lu ma war a mais yow tamit il faut nga xool d'abord sa sécurité ak jangoro bi di feebar eh, coronavirus je pense que le tamit c'est important parfois na met na trop nga toog sa kër amol lu ngeen lekk amoo mais ben instant tamit fu nga xool yow d'abord sa sa sa sa santé bi wala avant tout xam nga xam nga tey jii euh, xale xamul xamul awma xalé xamul awma tey jii mën nga wax waajur yi toog leen seen kër ngeen yar seen doom yi ngeen bàyyi seen doom ci kër yi mm. waajur yi jël seen doom yi ne leen toog leen ci kër yi ñoom ñëpp ñu toog ci kër yi xale bi bu ne eh, papa wala yaay dama xiif te dara amu fa léegi nu muy def te xale bi dafay dee ak xiif <laughs> beneen information bi tamit euh, on a appris on a une visite euh, Mm, surprise de ci apparemment takku der wàcc nañ fii ci ci bureau euh, zone 7 bi di xool nee dañ ko bëgg on ne sait pas encore yan mesure wala bokk lan moo waral décision bi exactement mhm. euh, je pense que vous avez eu l'écho waaw amna naa si écho parce que euh, bi ça ñëw sax fekk na man ma wàcc mhm. bi ñuy ñëw fekk na man ma mais amuñu droit ñëw ne ñu tëj leen bi parce que presse la am les papiers qu'il faut te nguur gi tamit joxoon nañ ñu ben auto ben autorisation à ce que mën nañ circuler ci euh, durant couvre-feu bi mhm. mën nañ liguey mhm sensibilisation On les attend en tout cas, on ne sait pas encore qu'est-ce qui a motivé justement cette décision. Les militaires, en tout cas les hommes détenus en façon globale, on ne sait pas s'ils sont des policiers ou gendarmes, en tout cas ils étaient là hier justement pour nous signaler ou bien pour nous justement dire de fermer le bureau. On ne sait pas à cette période de des sanitaires justement de l'épidémie coronavirus alors que la boîte fait un travail vraiment extrêmement important xamuñu lan waral décision est-ce que am na leur politique et y a la même politique derrière cette décision ou bien c'est simplement une décision par ignorance on ne sait pas on les attend en tout cas on est là voilà ça cadre vraiment c'est fini aujourd'hui pour le point du jour rapidement. waaw man li may dire, rek mooy ñu yokk farlu. gën respecter mesures prévention yi nga xam le ministère de la santé digle na a mhm. di wàññi déplacement bi tamit. Mhm. di raxas loxo yi saa bu ñu bañ duggaat ci kër yi ñu raxas loxo yi di takk tamit masque yi. Mhm. important. ñuy dem ñu takk ko. d'accord te tamit euh, bañ di jënd si. c'est mhm. dangereux justement masque fabrication atelier justement peut avant de quitter on rappelle justement les statistiques du jour les chiffres qui viennent tout justement de tomber sur euh, un échantillon de 300 387 tests effectués 37 sont revenus positifs aujourd'hui il s'agit justement des 29 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé 8 cas communautaires répartis comme suit 5 cas à Touba Mbaké, Tivaouane et chacun a un cas aujourd'hui. Euh, quatre patients sont déclarés euh, guéris par le ministère de la Santé. Aucun cas grave n'a été enregistré, heureusement. Peut-être c'est là également la bonne nouvelle. À ce jour, retenez que le Sénégal compte désormais 479 cas positifs, 257 guéris, 6 décès enregistrés, une évacuation, enregistrée. Donc au total, ce qui fait actuellement dans les hôpitaux sénégalais encore, on a plus de 215 patients qui sont en train de suivre les tests euh, concernant l'épidémie coronavirus au Sénégal. Le point du jour, c'en est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, juste après le ministère de la Santé, pour un autre point du jour. D'ici là, restez chez vous, appliquons les mesures justement d'hygiène édictées par les services du ministère. Vous voyez également avec notamment les masques et aussi réduisons ou bien annulons tous les déplacements qui ne sont pas nécessaires. En tout cas, limitons le déplacement, c'est important. Sauvons des vies pour justement euh, sauver également votre vie. Restez chez vous pour sauver des vies.